来吧，来吧。 ñi nga santate ku tedd ki ci dimbali kim nu dimbali ba daaw ci ar bi ñu teewoon fi doon waaj dem xel koom yàlla dogalaat ñu teewaat fi ren te dara manqué wul ci ñun te diggante daaw ak ren. yàlla jëlee na fi ku nekk. yàlla waaye mu bàyyi fi. du sunu man-man. du sunuy judd. du sunuy xam-xam. coobare yàlla rek la. kon ñi ngi sant ku tedd ki. ci ndimbal li nu amaat. waajaat jëm xel koom. dem xel ko moom. dem xel tax siis la. tax siis la. ku ko yàlla jagleelut ku nekk. ku ko yàlla jagleelut nekk. bëgg ko taxul nga mën ko def. bëgg ko taxul nga man koo def. kon nag nañu waaj nañ daan nan waaj nan daan waaje rek. fas yéenee départ. fas yéenee départ. xam nga xaw naa guddi. xam nga xaw naa guddi. ndax 23 heures léegi mu jot. ndax 23 heures léegi mu jot. kon dañuy fas yéenee rek. ñu fas yéene laxas dugg ci oto yi dugg ci oto jëm nag ca tooli Serigne Saliou yow fële ca Daaru Sakor fële ca Daaru Sakor bu ñu yeggee rek nee bu ci tool ñaan sunu borom na liggéey bi daan gaawee na liggéey bi daan gaawee mu gën nee gaawee lépp luñ cay sàkku. te lépp luñ cay sàkku. te yaakaar ko ci Serigne Saliou. te yaakaar ko ci Serigne Saliou. yàlla bu sunu yaakaar ci barkeb Serigne Saliou. am murit moom digal rek la la am. xel ko moom. xel ko lu fa waay def rek. lu sa bopp nga ko defal. defaloo ko kenn. kon nag ñu laxas rek. kon nag ñu laxas rek. fas yéenee dem ci jàmm. fas yéenee dem ci jàmm. ko daan waxee at mu nekk. yéenee dem ci jàmm. fas yéenee dem ci jàmm. yegg ci jàmm. yegg ci jàmm. te lépp luñ fa liggéey. te lépp luñ fa liggéey. yàlla na dëppoo. yàlla dëppoo. ngërëmal sëriñ bi. ngërëmal sëriñ bi. lu baax la. lu baax la. waaye. waaye. wal amalu saalix. wal amalu moo ko gën. wéet. wéet. wéet ci sa néeg. wéet ci sa néeg. di def say baaxiyaatu saalihaat. di def say baaxiyaatu saalihaat. naan laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah. wala yàlla tiif. wala yàlla tiif. wala tur woo a wér. wala tur a wér. li baax baax baax. tabbi ci tabbi ci biir. jëf ji yàlla nangu. jëf moo ko gën moo ko rek. yegg ak jàmm kon ñu fas yéene départ rek. rek. yegg ak jàmm yegg ak jàmm. barkeb Serigne Saliou barkeb Serigne Saliou. tàllal leen tàllal leen loxo yi. fu waay na tàllal loxoom na tàllal loxoom. tey wax amiin tey wax amiin. wax leen amin kan yàlla fi yàgg te wér wax leen amin amin amin amin amin barkeb Serigne Saliou man nga gar way jiitu ko fulla gar de